asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateur yu TMS TV ñu ngi leen di ziar di amati mbégte di ànd ak yéen ci télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu. alors ngeen gis euh, ñi ngi fii nag ci euh, rond point case bi fas yéene wàcc ci terrain bi war leen demal assemblée nationale fas yéene dem ak yéen jëppal Sandaga fas yéene defal leen reportage bu am solo. jëm ci lever immunité parlementaire Ousmane Sonko mi nga xam ne tey ci assemblée la ñuy voté pour dindi euh, mbalaanu euh, kiraayam euh, pour ñu mën ko convoquer par rapport ak affaire viol bi nga xam ni moom lañ koy tuumaal mais balaa ñoo commencé rek dañuy profito di ziar El Hadj Thierno Moule Sow mi nga xam ni mooy la xalif général. du monde di le roi médecine traditionnelle internationale the king of the king di nuyu aussi euh, soxna Ajaratu Mariama Camara di nuyu euh, madame Sow laa ren di nuyu suñu papa ju baax ji di Mamadou Aliou Sow yal na yàlla yokk ay leeram di nuyu Prince Moulé di ko ñaanal yal na dem ba sut ay waajuram di nuyu suñu goro soxna Oumou di nuyu euh, association Thierno Moulé Sow bi nga nekk xam ne mi ngi nekk Europe te Ousmane Samsi sama ruusi jiite ko kon damay ànd ak sama cameraman Youssou ñu dugg ci biir dëkk bi kon Youssou ñu dugg amal waxtaan bu am solo jëm ci dossier Ousmane Sonko. la ziar wér. yaa am jàmm. alhamdulilah. alors ñu bëggoon xam tur bi ak sant bi. Lamp També du laa tudd. yaa ngi suivre dossier Ousmane Sonko. bu baax. alors euh, Ousmane sunk liñ koy tuumaal am na wala amul. Euh, liñ koy tuumaal am na wala amul. loolu comme nee nañ justice moo fi am. léegi yoon mooy àtte rek. Euh, ñaar ñu nit moo jiiñ nit. léegi euh, ñaar ñi ñu ñi ñu ñi ñi ki ñu ki ñuy taqal ak ki ko taqal dañuy toog rek ak ki leen di waaye yaakaar naa ñun population bi mënuñoo ne kii moo def wala deful ndax nit moom euh, ki ki kiñ ne moo def ak ak ki ko koy jiiñ ak ki koy àtte moom moo fi nekk mais yaakaaruma ne peuple bi mën na nekk di àtte ne kii moo def wala defut. mais yow dégg nga ñaari version yi dégg nga camp Ousmane Sonko dégg nga camp Adji Sarr am nga ci xalaat non version yi man mënuma koo jàpp xam nga lu ma mën a jàpp mooy nee nañu réew mi justice am na fi nañ ko teg ci yoon rek ñu àtte ko entre ñaar ñu jote rek en tant que ah, comme nee nañ affaire de privé la lool la Macky Sall wa léegi nañ ko def affaire de privé ñaari nit ñu jote justice def yoonam rek waaye tell tell jii ma ci gis nii mooy am na ci loo xam ne ku ne xam na ne politique da cee rax moo tax coow li ampleur bi nekk nii ba ngeen tey mën ñoo ñëw di ñu laaj te politique yëpp weesuur le seul problème mooy Macky Sall ci boppam boo gisee sénégalais yi di jéem a àtteel seen parce que justice moo fi amut justice moom amu fi benn waay moo yor réewam di def lu ko neex xam nga yor ay faalewul ay loi faalewul dara je m'en fous lay doxee lu ko neex ku mu neex jàpp ko neex bàyyi loolu ñun ñëpp fekk nañ fi xalifa Sall jaar na fi keneen ak keneen jaar na fi donc nag bon xam naa jàpp na ne bii saa passera mais Ousmane Sonko moom li ñu koy jiiñ man ba keroog mbir mi di leer man gëwuma ne bu dee le mot viol bi ñuy wax man gëwuma ne moom moo ko def. man loolu laa est-ce que jàppul leen ni jàppul leen ni Ousmane Sonko dafa juum le fait que muy dem ci salon de beauté. waaw mais xam nga dafa am ñaari chose Ousmane Sonko bu juum fréquenté fu mu war a fréquenté loolu ça n'a rien à voir ak ñëw jël nit taqal ko ne ko da ngaa xam nga y a deux choses Ousmane Sonko bu juum loolu c'est c'est autre chose. mais taqal bi aussi yéen nan ngeen mën a prouver que nii dañ koo taqal. waaw sëñ bi xam nga ñun Sénégal lañ nekk. Euh, politique day def politique te am na yu fi jaar yu bari euh, ay ñoom Mamadou Dia jaar nañ fi ay Omar Bolondé Diop xam nga ñu bari jaar nag ak yeneen ak yeneen mais teewul. am na loo xam ne man boo boo ma ko laajee côté wàllum politique Sénégal ak ni muy doxee man am na loo xam ne boo ma nee diw nangam rek dama koy weddi am na koo xam ne tey jii boo ne moo diw mii nangam man yàgg naa suivre politique bi diw moo def lii wala def mi dama naa la waaw wala déet ba keroog may gis lu leer xam nga man li ma jàpp laa la wax. ba keroog ki nga xam ne moo war a atte def lu leer mais réew mi nee naa la amul justice donc lenn rek moo fi mën a am Macky Sall day mën a may Sonko jàmm mayu ko jàmm ah après lu mu subir rek conséquences yi moom na ko jël. parce que tamit jàpp que ni li ñuy li ñuy waxal Ousmane Sonko amul. lool laa jàpp man dama gëm ne amut du question jàpp mais dama gëm ne amut lépp politique moo ko laal mooy li ma la wax léegi nee naa la. Euh, justice ñu ngi koy fooyee wax naa ko ay yoon nee naa dañuy fooyee justice te lu ñu war a jaram moytu la ndax justice bis boo koy fooyee day dangay dem ba tool foo xam ne population bi day fajal boppam te bis bu fajalee boppam kenn ku ne da ngay jéem a defal sa bopp justice te boobaa looloo taar réew réew mu tàkk nag injustice ko taal te may ñaan sénégalais ñu bàyyi la terme am na ay ñu baax a fi tëdd d'accord fii am na ñu baax ñu fi tëdd am nañ ku ne waaye bul fàtte ne boo demee Irak façon wàllu yu yàlla bu nekk nga fa tëdd te tey jii Irak dafa tàkk ba jeex nañ bàyyi terme yooyu te tegaat affaire bi ci yoon kenn ku ñëw ñu jox la at àq man daal li may métti mooy injustice bi nekk ci Sénégal man le problème de Sonko dafa ndaw ci samay sama ci la ma yaakaar le problème de Sénégal mooy injustice dafay yàgg am jàpp ay nit di tëj jaay ko te drogue yëpp a ngi ci biti ay Bougazelli jaay ko ñu gën a dangereux lii ñuy waxal ñu gën a dangereux ñi ngi fi ñi ngi leen jàpp bàyyiwaat leen ñuy taxawaalu parce que dañoo farak ñi fi nekk yooyu lañ war a bàyyi yooyu nag ay frustration lay indi bëri na sénégalais yoo xam ne affaire Ousmane Sonko bi da leen a metti te pourtant ànduñoo ak Ousmane Sonko tey ànduñoo ak moom ëllëg mais gis nga injustice baaxul ci réew te nañ nañ ko moytu bis bu réew mi tàkkee nag man maa la wax li bis buy tàkk te ñaanu ma ko yàlla injustice moo taal réew mi man maa la wax li merci ñu ngi lay jaajëfal maa ngi lay ziar. waaw maa ngi lay delloo ziar. yaa am defe naa yaa ngi suivre dossier Ousmane Sonko. waaw bu baax a baax. ban jàngat nga ci am. ah koy tuumaal am na wala amul. non man jàpp naa ne amul nag. foo ko teg. no am ngëm-ngëmam laa gëm rek te damaa déglu waxam rek te depuis mu commencé ba tey waxam damay jàng si waxam lu bëri. mais est-ce que wax kese rek mën nga gëm que ni liñ koy tuumaal amul. mais yàlla sunu borom moo xam loolu waaye man moom sama ngëm damaa jàpp ne loolu amul tuumaan la rek. mais jàpp nga ni Ousmane Sonko dimension bi mu toll est-ce que euh, waroon war na mën a di kër gi nga xam ni euh, salon de beauté la. non doomu aadama leen di doomu aadama yi rek. xanaa lay wuteek doomu aadama yi mooy lu mu doon euh, politique sain rek mais foofu moom ñëpp a fay dem du moom rek moo fay dem. mais est-ce que du njuumte ci moom. ndax njuumte la ah defe naa de am nañu jàpp ne njuumte am nañu jàpp ne njuumte. yow sa xalaat lan la ci. man luy sama xalaat ah xëy na daa demoon pour fajo rek. waaye jàpp naa lu ma lu rek laa jàpp moom. am na ñuy wax ni Macky Sall moo nekk ci ginnaaw loolu loo ciy tontu. mais loolu waxi doomu aadama le waaye man jàpp naa ne man sama sama sama sama gis-gis jàpp naa ne nguur de am na am na teg na si teg na si loxoom. ci naka. si dossier bi. ci naka moom Ousmane Sonko sax Macky Sall la tuumaal. non pouvoir la rek xam nga pouvoir ak opposition duñ bokk ndax dañuy damay jàpp ne maanaam comme li mu doon opposition te moom rek moo fi sës te ndaw jublu ko jàpp naa affaire yi war nañ si man a porox ndollu pour am benn tuuti faayet buñ ko daaneel. alors ban rôle la ci justice Sénégal war a taxawee ci mbir mi. jaaxaanaay rek. jaaxaanaay rek bañ a bañ a bañ bañ a topp euh, maanaam lu ko nguur gi imposé rek nekkal fi ñëpp rek. mais amuloo benn tiitaange ñu dugal Ousmane Sonko ci kaso bi. waaw jaaxle naa si nag dëgg fa yàlla ndax jamono ji ñun ndaw ñi moom Ousmane Sonko lañ yaakaar mu mën a changer système bi ndax euh, depuis jamonoy Senghor ak jamonoy Abdou Diouf ba tey li fi nekkoon moo fi nekk te jàpp naa ne ñun ndaw ñi Sonko rek lañ am yaakaar pour mu changer système bi waaw. tey ci assemblée midi léegi dañuy dindi immunité parlementaire am pour mu mën a dem uyu ji justice loolu lan moo ci sa xalaat. waaw lépp nañ ko teg si yoon rek loo gis rek nañ ko teg si yoon rek waaye suñ ko dé suñ ko dindee tamit na wuyu ji rek waaye dossier bi ñoom nañ ko teg si yoon rek. est-ce que yow wóolu nga sa si su réew. ndax wóolu naa ko ah du may la wóolu naa ko du may la ko waaye nag euh, ku ku euh, ku maanaam ku. ku bukki bukki bukki bukki bukki ku seen ku seen lu ñuul daal sañ nga daw ndax man. ci sama gis-gis euh, defoon nañ ko Khalifa Sall def ko Karim Wade kon instant bii moom ah nañ ñaan yàlla si si tëddee njaaxanaay rek. mais jàpp nga ne Ousmane Sonko liñ koy tuumaal mën na am. non doomu aadama du ma ne du may la mën na am du may la am gëm naa man sama gëm-gëm laa xaw ma gëm-gëmu keneen man jàpp naa ne amut ndax Ousmane Sonko am na xel am xel goo xam ne yaakaar naa yu ñàkk fayda moom war na ko mën a sóoraale bu bu bu yàgg. maa ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar Serigne. tur bi ak sant bi. Euh, Assane Niang. yaa ngi suivre dossier Ousmane Sonko. waaw am na lu ma ciy jot a suivre de. déglu nga ñaari parti yëpp li ñu wax. waaw am na lu ma ci déglu si ñaari camp yëpp wax dëgg yàlla. alors yow en tant que citoyen sénégalais lan moo ci sa jàngat. waaw li ci sama jàngat si dossier Ousmane Sonko mooy euh, boo dee nit boo dégloo ñaari kaa yëpp li ñuy wax même boo arrêté woon benn fou ci mbedd mi koo xam ne sax wérul nga déglu même euh, jarul sax analyse bi di xóot même les faits faits rek boo ko dégloo même di nga xam ne xel nanguwu ko si femme bi li mu ne viol répétitif la wax xam nga viol répétitif euh, nekkul une sole fois day nekk deux fois ba trois fois ci koo xam ne dafa ñëw tegal la nee na ñaari pistolet yaa ngi comprendre euh, boo xam ne amul euh, siisu amul yuuxu amul benn xuri-xuri amul benn wok wokku ci loo xamante ne nee nañ neexul la viol la ba pare defoo ci benn defoo ci benn effort après nee na Ousmane Sonko ci li ma dégg nee na troisième fois bi da ko envoyé message ne ko xaar ma maa ngi ñëw yaa ngi comprendre te message boobu ba léegi ñoom mënuñu koo génnee même jarul sax di xóotal boo gisee li fi ce qui s'est xalifa ci Khalifa Sall Karim Wade ak yeneen ak yeneen. yooyu yooyu moom ay missaal la rek. teewul teewul ñu koy tuumaal moom mën na am. très bien waaye mais man ma ko sama xel nanguwu ko. léegi nan nga mën a jàppee leader bu mel ni Ousmane Sonko. ñuy wax ni mën na nekk président 2024 au Sénégal mhm. muy dem ci ay salon de beauté rawatina ci kër. Mhm. waa est-ce du njumte ci Ousmane. Euh, non non jàpp ma ni njumte la xam nga pourquoi jàpp ma ni njumte la c'est que Ousmane mooy nit koo xam ne boo koy suivre dafa wàccee boppam ba comme ñun ñëpp dafa jàpp ne Sénégal la simple citoyen la nit la comme nit ñëpp. mun na dem di doxi ay activité am doxi soxlaam comme tout le monde nekkul nit kuy laaxatu wala muy nëbbatu wala jël boppam teg ko ci kaw doomu aadama yi salon de beauté yi ñu tijji c'est tout simplement pour les gens pour nit ñi la n'est-ce ñoo fa war a dem dañ fay dem te et dafa feebar ñu digal ko massage am na plein de droit pour mu dem defi massage. ku yor soxna est-ce que mënul woon dem ci ay soxnaam ñu massé ko. waaw non non non xam nga massage professionnel am na xamante ne daf am na ñoo xam ne si la ñu si ñu maanaam def seen euh, def seen formation pendant un an wala deux ans et quelques nga xamante ne massage boobu massage bu professionnel lay doon. bu ñu la ko digalee wax dëgg yàlla am na noo xamante ne même sa soxna bu fekkee bëgg nga ko ci manewu ko ci mais di nga dem ci ki nga xamante ne moo ci ëpp professionnalisme sa soxna nga dem defi ko foofu sa loolu du dara. am na ñuy wax ni euh, état bu Sénégal ñoo nekk ci ginnaaw dossier bi yow nga ciy wax. waaw man loolu loolu laa gëm même man loolu laa gëm dama gëm ni ay pexe la c'est que comme wax euh, derrière comme li ma la boo xoolee ce qui nga xamante ne moo nekkoon ci dossier Karim Wade nekk ci dossier Khalifa dossier euh, comment dirais-je même di nga gis ne lii buñ la complot la du la bett du la bett bu fekkee yaa ngi doon chiffre loolu yëpp buñ la complot la du la bett. léegi tey la ñuy voté immunité parlementaire Ousmane Sonko pour dindi mbalaanu kiiraanam amul amuloo benn tiitaange ñu tëj ko ci kaso bi. waaw no am naa ci tiitaange ndax waa ji moom ku ne xam na ne ñun yor nañ président boo xam ne moom mbirum dictature yàgg nañ ko koo tuumal. toujours nit ñi loolu la ñuy wax moo tax même buñ ne même buñ ne bu ñu dinañ ko tëj wala duñu ko tëj man gëm naa ni mun nañu ko tëj mais nag euh, du yomb lu jafe lay doon. du yomb bu ñu ko tëjee yéen askan bi nga xam ne jàpp ngeen ni liñ koy tuumaal amul lan moo ci war a nekk seen taxawaay. waaw taxawaay bi mooy rek euh, wax dëgg yàlla du dinañ ko jéem a soutenir jusqu'au bout mais nag d'accord ma ci maanaam di yàq maanaam li nga xamante ne ñun ñëpp ñoo ko bokk wala ñun ñëpp ñoo ko moom. d'accord ma ci waaye nag d'accord naa ci taxawu gi maanaam même alkaati yi. bu booy dee def ay manifestation wala yeneen i affaire mun nañu leen gunge sans ñu yàq dara ñu def seen manifestation ba ëllëg c'est que loolu suñu droit la am nañ ci droit am nañu droit gis mbir muy doxee noo xamante ne neexuñu ñu takk suñuy morso taxaw ñaxtu loolu Macky Sall mayuñu ko loolu waaw réew mi moo ñu ko may. pourtant Ousmane Sonko moom ci conférence de presse am moom dafa oote violence. waaw loolu gisoon nañ ko fii même président bi nga xam ne moo fi nekk tey. gisoon nañ ko fi si temps Ablaye Wade mu defoon lu mel noonu. est-ce que yoon la. non non même bu dul moom bu dul yoon Ousmane Sonko c'est que bi dafa dem ba nga xamante ne loolu rek la dese xam naa ni ñoom keroog bi ñu fay dem ne jëli wuñu ko dañ doon dem pour sa rassemblement bu leen askan wi reetaanaloon ñu ne ko coppar yóbbu te su boobaa keroog lañ koy gëj a gis moo tax ñun position boobu rek lañ ci mun a am foog ñu taxaw ñaxtu ko ñàkkante ñoom wala leen ni leen neexuñu loolu rek. maa ngi lay jaajëfal bu baax. ok merci beaucoup. Euh, dama bëgg ñu waxtaan aborder un peu euh, sujet Ousmane Sonko yow en tant que citoyen sénégalais yaa ngi suivre dossier bi yaa ngi déglu ñaari parti li ñu wax yow lan moo ci sa jàngat. xam nga man lenn rek laa xaw a mere Ousmane Sonko lenn lenn rek Ousmane Sonko ku ne xam nañ sénégalais la kenn ëppale ko ci réew mi mais man dama ko demoon faral mais ba ma déggee ne dem na fa xam na lu dem ku dem ba dugg fu ñuy maasee foofu yàlla rek la ci mën a wax lu fa am ak lu fa amul. yàlla man xaw ma dara wóoruma ci ndax maase góor da koy def jigéen da koy def man daf may dal man président damay dem euh, dugg si massage jigéen massage ma am lu ma sentir góor laa nit la Ousmane Sonko góor la nit la Sénégalais la da góor góor rek la mën a doon ku nekk nag maase nag góor gun koy def boo dee góor dëgg bula la jigéen maase dëgg ak sa bopp ah. est-ce que foofu Ousmane Sonko du juumte ci moom muy dem ci ay kër yi nga xam ni këru massage. xam nga fan laa ko meree yow Ousmane Sonko pat daal la monde xam na la booy dem massage ji àndal ak sa jabar. sa jabar toog nee ni maase la boobu lu leer am na mais Ousmane Sonko ak lu mu toll ak ponkol gu mu doon ci réew mi bu muy dem mu a àndal gàddu koor wala xaritam wala jabaram mais moom kese dem loolu affaire de cuune la ci moom quoi. alors beneen bi mooy euh, jàpp nga li askan bi di wax ñu ne complot la jëm ci jóge ci Macky Sall ak état bi. man daal euh, bu dee complot la ya ñoom euh, ku dee rek yàlla ngay loyal. sa gis-gis yow yaakaar nga ni complot la. politique de lu na am na ci. politicien mën naa rey nit kuy nit kuy dund ma gas ko suul ko lu na am na ci mais nag Ousmane Sonko dafa na ci yoonam nan ko bàyyi yàlla may ko jàmm. kon nga ne liñ koy tuumal amul. wóoru ma nit nag boo wax da ngay wax da yàlla tax. mais mais nee nga nañ ko bàyyi. boo déggee ma ne nañ ko bàyyi damay wax diggante yërmande ak yërmande. waaw mais dossier viol dafa garaaw de xaw ma ndax moo def wala deful mais dossier viol dafa garaaw. xam nga bu doon ñun ñii néew du doole yi danañ sonn ba léegi kon jël si nañu. mais ñu am xaalis ci dëkk bi ay borom alal di def lu leen neex kenn gisul bari ci réew mi Ousmane Sonko rek a fësle mais am na ñoo xam te donc ci réew mi do lëmbe réew mi toj réew mi da kenn waxu leen dara da Ousmane Sonko xëy na ba sax moo feeñ. waaw bul xool ci ñooñu rek. non ankay xam lu tax ma wax loolu. nekk da nga war a xool sa taxawaay. waa léegi Ousmane Sonko yow. nit deful rek yow nga ne da ngay def. mais yow nit bu lay ut nit bu lay ut boo ko rombee buntu këram rek looloo dal yaa ko teg sa bopp. ku la dëgg da nga koy daw bu dëkkee koñ bi nga dem dëkki fee. Ousmane Sonko waroon na jël ay matuwaayam. bu yàgg c'est nag moo fi sës. lan nga xalaat bi ko ab Ablaye Wade recevoir daaw ne ko buy ti nay ànd ak jabaram pour mu koy toogal parce que jàpp na ni saa su ne mën nañ ko poisonné. waa les grands mun naa la xam leen usman Sonko Macky Sall ak ñoom Karim Wade ak ñoom kii nga foog ne bokk na sa njaboot Ablaye Wade bi. Ah, c'est la famille ah. laaj naa ko. no ay famille lañu de. ñoom seen biir noo koy waxtaanee est ce que lii nekkul korona gun teg ñoom seen biir seen diggante ñoom la ko quoi te ñoom rek la politicien moo la mën a may léegi milliard xëy xalab la loolu si politicien la yàgg yaa mun a ànd ak politicien léegi mu may la kër léegi xëy xalab na noonu mosu laa xam loolu yàgg na si politicien jikko politicien la ndaw yi daal laa wax noonu yeewu Ousmane Sonko lii nu ko jiin xaw ma moom la xaw ma du moom mais yàlla rek a xam kenn fekkewul ku ci wax rek naa fekk nga. fu ñuy daanelee mooy euh, justice bi lan nga leen di euh, digal justice ban taxawaay la ci war a am. justice bi mu teg ko ci yoon rek femme bi tamit war na koo bàyyi femme bi na ñëw parce que nag viol bu nga ko jéenee nit di ko jéen ko góor ki rek Sénégal looloo ko yàq góor ak jigéen bu nu violente ñoom ñaar ñëpp a violente nekk ko góor ki rek parce que nag li ngay sentir la kii di sentir ñoom ñaar ñëpp la mais nu jël lépp wéer ko ci ku góor looloo fa war a dañ loolu moo war a dañ ci réew mi. wax dëgg yàlla parce que a ah, Ousmane Sonko ci réew mi la bokk donc am na président boo xam ne essayé nañ ko taay réew mi metti na trop ñun ñëpp jommi nañu mais Ousmane Sonko nan ko bàyyi rek ci yoonam gu mu ne nag yàlla may ko jàmm loolu laa ko ñaanal yal ko yàlla may jàmm. merci ba 2024 nu amaat koo xamante ni suñu xol seen fu mu nekk nii metti na si ñun de réew mi toj na de grand réew mi toj na de. barke yeneen bi am na ñoo xamante ne bu ñu lekkee du ñu añee du ñu reer réew mi toj gu mu toj ni nañ ci wax. merci kontaan nañ bu baax a baax jërëjëf. maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar bu baax sëriñ. sama laaj bu njëkk xam nga li ma jaaxal sa gars yi dañ may orienté ci yow ne dem la demal ci Moustapha xanaa yow pro Ousmane Sonko nga. effectivement. kon yow li ñuy tuumaal sa leader am nga ci njàngat. bu mag laa ci am. man jàngat nga ci am. donc bi ci ñëpp am rek te mooy ñàkk koo lu d'ailleurs premier chose beneen bi ci ak li ñëpp wax rek que ne ay mensonges la. ak euh, liquidation adversaire politique. moo waaw parce que àdduna li xewoon démb ak li xew tey moom ngay boole moom moo lay mën a jox lii xew suba ci ngay comprendre li xew suba parce que Afrique particulièrement Sénégal liquidation adversaire politique yàgg na fi gis nañ ko ci seex Anta Diop gis ko ci Mamadou ja gis ko ci Omar Blondin Diop jeune bu déterminé. ñooñu du ñu Ousmane Sonko. waaw ñooñu duñ Ousmane Sonko waaye moo tax ñu ñu ñu ñu tirer leçon ci ñooñu. yow jàpp nga ne Ousmane Sonko dimension bi mu toll war na mën a accepter di dem ci ay kër. effectivement parce que citoyen la comme ñëpp sénégalais la comme ñëpp. pourtant foofu du salon de massage salon beauté la suite beauté. waaw mais loolu yëpp c'est pas important xam nga ce qui important lan la mooy moom il a dit ne moom dafa am benn maladi bu nekk ci moom yàgg naa dem foofu mu ci am saafara xam nga nit ñi ñi ñuy jaawale bokkul nit ki su fekkee nga xam ne dafa feebar. ki ko mën a faj tubaab laak nit ku ñuul laak jigéen laak góor laak amul important ki mën a faj maladie am kooku moo loolu moo am important ak fi mu amee saafara loolu moo am important est-ce que tu vois war na faa dem waru faa dem loolu du man jàpp naa ne loolu du débat bi xam nga débat bi lan la mooy lu tax ñun li ñu miin fii Sénégal mooy nit ku jug pour bëgg a laaj réew mi wala nit ku am ambition wala indi ay discours wala indi ay révélation ci ni as nguur gi di sàcce àllu askan wi ak taxawaay bi ñuy am ci bu bon bi ñuy am mal gouvernance bi ñuy am ci réew mi ñu liquider la par force kon yow da nga jàpp affaire bi complot la pour liquider Ousmane. si que ne complot la yow xam nga lool yow mii di ma ko laaj sax. man kay xaw ma. non xam nga ko. parce que man yow yaa ngi ci biir réew mi gis nga li fi xew xam nga li fi xew donc da ngay xam ne lii complot la te nag Macky Sall bu fekkee Ousmane Sonko rek moo ko dese bu yeboo mu xam ne na leem lim am dem may du sotti. jàpp naa ni waru leen tiit bu fekkee ni dañu nekk ci réew droit magistrat yi di def seen liggéey. waru leen am benn tiitaange. waaw mais ñun tiituñu xam nga lan lañ tiit dama naa la wax ci jël benn wax leen ne dañu dañ fi am ay kii yu xam ne daf fi jàll ñu fekkee ko. parce que ñun ba Sénégal di Sénégal ba léegi yow mosoo dégg ba un président de la République bu taxaw ne je suis chef des chef des suprême j'ai commandé tel ak tel ak tel dossier tel ak tel ak tel man maa ci dekk sama cooncu. aéroport bi la euh, euh, kii gii la taxaw seen le président Senghor bi la taxaw wax ko devant lay caméras. donc justice boobu nag su fekkee moom dafa taxaw ne man maay maa jiite justice bi ça veut dire mooy li ma neex mooy am li ma bëgg a def moom mooy. waaye jiite justice taxul mu manipuler juge. waaw mais si gis nañ ko fi parce que euh, CREI bi ñu tëjee Karim Wade mais am na ay nitu droit yoo xam ne dañ ne loolu jaarul yoon façon bi ñu tëjee euh, Khalifa Sall ba léegi quitté ko am na ñoo xam ne nee nañ jaarul yoon. léegi yooyu yëpp jaar fi ñu gis ta même personne bi nga ne moo fi nekkoon moom moo nekkoon ci ginnaaw loolu moom moo nekkaat ci ginnaaw li luy tax ba duñu ragal. léegi bu ñu tëjee Ousmane Sonko yéen nga xam ni ay soppe Ousmane Sonko ngeen lan mooy nekk seen taxawaay après. da première leew xoolal li nga wax sax dañ ko dul def dañ dul seetaan sax ñu koy tëj parce que xam lan la ñun suñu yaakaar instant ni ci Ousmane Sonko la nekk ñoom nag débat bi. lan ngeen war a def. mais li ñuy war a def ñu ngi koy def duñ ko. wax mooy lan duñ ko wax. xaaral bañ yegg ci sënkam parce que moom Macky li ñu ko defal ñun 2011 2012 ba tax mu nekk président loolu na xam ne ñi ko doon def ñi ngi fi. fit yi ñu àndaloon di ko def ñooñu ñu ngi fi fit woowu mu ngi fi toñ bi ñu ko toñ ba mu yéeg ci garab gi ne day dagg bépp branche wala bépp fil bu tax keneen man a yéeg na xam ne loolu duñ ko nangu duñ ko seetaan garab gi ko gi mu yéeg nag toog ci Ablaye Wade moo ci gënoon a yàgg parce que 27 ans plus 12 ans loolu ñaata année la. naa ne du ngeen cautionné affaire violence ak taal dëkk bi. mais non loolu cautionné loolu loolu loolu yëpp xoolal xoolal bul ma poussé ma wax sama stratégie suñu stratégie duñ ko wax dañuy bàyyi ba yegg ci sënkam ni ñi danañ xam kenn ku ne di nga xam loo fooy taxawee. kontaan nañ bu baax. ñoo gën a kontaan merci. maa ngi lay ziar. char nañ la bu wér. nga ne yow porteur de voix nga. de voix la comme tous les. maanaam maanaam maanaam maanaam. oui porteur de damay yëngu si wàllu bëre. amaana boo ma xamul ñu may seetaan xam nañ. yow mbër nga waaw ñu may woowee si turu Ardo. waaw man écurie nga nekk. écurie golf gaynde écurie golf gaynde di dooree waar fii si marché Gueule Tapée di jaay ndugu. jaay pataas ak lépp kon si dëkk bi la bokk. kon yaa ngi dóor sa waar. ñu ngi dóor suñu waar comme ni ñu koy defee chaque jour xaaruñu si kenn waaw. léegi dama bëggoon ñu waxtaan un peu ci dossier Ousmane Sonko. Ousmane yaa ngi koy suivre bu baax a baax. alors yow ban ban jàngat nga ñu ci mën a defal. ban jàngat lañ ci lañ ci mën a defal maanaam gis nañ ni affaire bi demee gis nañ ko quoi xam nga am na loo xam ne jaru ko fii Sénégal la suñu Sénégal la mënoon nañ ko jaarale si leneen te dil bu la xam nga est-ce que est-ce que xam nga nuñ koy waxee. est-ce que Ousmane Sonko liñ koy tuumaal amul. loolu noonu ah bu amoon sax duñ ko tuddee viol quoi bu doon dafa am sax duñ ko tuddee viol xam nga. lan lañ koy tuddee. buñ ko jàppee dañuy jàpp dañuy jàpp gel bi dañ koy jàppee caga bu amul këyit est-ce que yaa ngi comprendre gel bi tamit dañ ko war a jàppee caga bu amul këyit parce que bu dee du benn yoon du ñaari yoon lañ wax n'est-ce pas. waaw ah, kon gel bi tamit nañ ko jàppale ndax caga bu am. ndaw si nee na da ko doon menacé de mort. waaye ndaw si day xaanju waaye menace de mort ngay ñëwaat muy amaat loolu amul nañ xool leneen beneen méthode quoi xam nga sénégalais comme ñun dafa soxla suñ doole est-ce que yaa comprendre te ñun ñu ngi si ginnaawam xam nga li ngi si ginnaawam dafa néew doole te ñun ay néew ji doole lañ. est-ce que du njuumte ci Ousmane Sonko muy dem ci kër goo xam ni ay xale yu jigéen na fa ne ba ñuy wax affaire u massage mu fay dem. loolu njuumte la ndax maanaam simplicité moo ko yóbbee loolu dafa simple quoi sénégalais la xam nga sénégalais day bëgg partager moom toujours dafa gëm ni day jàppale néew ji doole ji. lu sénégalais mën du dem feneen ak feneen di ko fa def loolu chaque jour dafa bokk si ay discours am dafa bokk si ay doxilinam kon kooku ñun la gën a jege néew doole ñun ñoo ko mën a jàppale dañ koy taxawu dawuñu si saala yaa ndeer waaw ku bëgg a bëre nag ah di bëgg a maanaam am na loo xam ne du combat yaaw jaal ak Yékini du combat xam nga combat bi mooy xam nga Macky Sall ak Sonko kon Macky Sall bu mu daw avance boobu noonu na ko taxaw bëre ko moo gën mu koy jéem a génne si. kon yow da nga da nga jàpp ni. li Ousmane Sonko wax loolu ngay dëggal que ni Macky Sall moo ne ci ginnaaw. mais noonu la fa demee ah, loolu lañ gis tamit fi Sénégal la loolu luñ gis rek la ñuy wax xam nga bu bëree dafa bëgg a bëre bëggul adversaire tamit xam nga rek waaw mu comme euh, affaire de dictateur ñu continuer comme ni muy doxalee ni jaru ñuy dem élection quoi. tiitu leen ñu tëj seen seen seen buñ ko buñ ko tëjee ah gis nañ ni ñun demee de commencement bi ñun bañu si dara ah. mais loolu xew barki démb defe naa ni kenn du ko cautionné kenn du ko nangu lan. nangu ngeen ñu taal dëkk bi man mii di wax ak yow non dëkk bi duñ ko taal suñu dëkk la mais am na loo xam ne duñ ko seetaan est-ce que yaa ngi duñ ko seetaan léegi bu ngeen ko seetaanul nan ngeen di def dëkk bi ah mu yàqu benn yoon ak ñu continuer di ñu noot ban moo leen gënal mais du yàq dëkk bi mais duñu seetaan tamit ñu ñuy noot quand tamit xam nga man mii di wax ak yow ay ay euh, maanaam ay maquillé rek ñoo ñuy jàppale ñoo ñuy jàppale si ñuy dem làmb ak yëpp ku si mel ni Lat Diop salut au passage waaw ak euh, euh, pa pa pa Amadou Ba mi nekk fii nii golf xam nga kon dañ may jàppale mais tamit lu ñu may jàppale jàppale du tax tamit na may xib sama bët di xool lu ñu arrangé ëllëg ñoom tamit dañ bàyyi xel si loolu lépp buñ ñu jàppale rek foog ne dañ ñuy diri fu ñu jëmalee ñu jëm waaw ñu ngi ñuy jàppale mais tamit ñun ñu ngi xam bubaax ki baax si ñun ëllëg surtout ndaw ñi xam nga américains yi boo leen ñoom ëpp ñu leen pétrole mais boo leen laajee seen pétrole bi xam nga la lañ lay wax pour génération future bi la ñuy ñëw kon ñuy ñëw dañoo jar a sóoraale bu ñu xool tey rek daal di dem suñu ndaw ñi ñeneen ñi lan lañ fiy fekk gis nga ñuy bay cacao am na ñoo xam ne sax ñu ñam chocolat parce que ñoo te ñoom ñoo koy bay Afrique dafa meti chaque jour noonu su njiit yi nañ ñu jàppale buñ ko mënul xam nga rek ñu jël lu ñu jot am am nañ doylu xam ne am nañ ay milliards ñu dem bàyyi ñun ñun Sénégal ñun ñoo ko mën a defal suñu bopp comme li may wax sama interview yi passé ñu daw génn fenn duñu jël gaal gi di dee ñun fii la ñuy toog gem Sénégal ku ñu si mën a jàppale ñu ànd ak yow ku ñu si jàppalewul ñu jëlee la fi teg keneen ku mën a kii wu Sénégal. mais wóolu nga sa juste su réew quand même. lan sa juste su réew wóolu nga ko. waaw moom wóolu nañ ko wóolu nañ ko comme comme comme yi fi jot jaar rek wóolu nañ ko waaw fii daal xoolal yàlla moo yor dëgg quoi foofu justice bu mag bi te ñun justice bu mag bi yëpp mooy ñii mooy jeunesse bi mooy waa dëkk bi ñooy justice bi te ñu ngi jugé waaw ñu ngi jugé gars yi xëpp nañ seen bët di xool di mu ngi mu xam nga rek yàlla mu ngi wane ay mbootam ci suuf. lépp mu dina leer te dina leer incha allah Sonko ñu ngi si ginnaawam tey ñu ngi si ginnaawam suba parce que moo wane dëgg quoi waaw man mi di wax yow waa Macky Sall amul luñ ma defalul bu ma leen gërëmul waruma leen xalab mais Macky Sall li mu teg nii Baye Fall lii du bi na teg xam nga nag dëggal boppam xam nga teg lu leer si loxo sénégalais xam nga bu dee dañ koy votel ñu votel ko bu dee duñ ko votel tamit mooy loolu quoi noonu la demee. kontaan nañ bu baax a baax. ñu ngi lay ziar. waaw delloo ziar sëñ bi. yaa ngi am jàmm. waaw maa ngi sant yàlla bu baax. alors ñu bëggoon xam tuur bi ak sant bi. waaw man maa ngi tudd Pape Sare. yaa ngi Ndakaaru yow waa fan nga. man waa Kaolack laa mais Dakar fan ci Kaolack. Jalañ Kaolack. ana madame le maire Mariama Sarr. mu ngi fa. xanaa foofu la dëkk de. waaw fa la waa xorom si. xorom si ñu ngi fo yow xam ma Kaolack. yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax. alors sama laaj mooy Ousmane Sonko dañ koy tuumaal viol sàkku xale bu jigéen ci lu ko neexul yaa ngi suivre actualité déglu nga ñaari partie yëpp. lan moo ci sa njàngat. waaw sama njàngat euh, bëri na ci en tant que sénégalais en tant que doomu réew mi waaw ñu juddoo réew moo xamante ne ku nekk yàgg ku nekk xam na ne tuuma yàgg na ci réew mi mais bu ñu gisee ku mel ni Ousmane Sonko tey depuis bu mu commencé di def activités yi mu nekk nii ba tey ay nit di ko fexeel ay nit di jéem ci moom ay pexe di ko jéem a teg ay daan comme ni nga ko defee ay moromam parce que bokk na si ñu bu dee ñëw ci langue politique bi. ñu gis ne def nañ ko fi xale Khalifa Sall téye ko ci loo xamante ni amaana moom la wal moom ñu da ko fi Karim Wade amaana moom la wal du moom mais téye nañ ko yàqal ko activité am yàqal ko yow loo xamante ne tey moo na ko yóbbu ci beneen niveau tey ci addunaam fu mu toll tey bu ñu xëyee ci moment bii nii tey moment boo xamante ni sénégalais ñu ngi dee ak xiif sénégalais ñu ngi ci hôpital yi bëgg a faju amuñ lu ñu fajoo sénégalais ñu ngi leen di topp ay affaire vaccin affaire corona tey ñu xëy bu ñu indil ay affaire da sonko def na lii viol lii wala sonko def na lii xam nga lépp ñun ay sénégalais lañ. da ngaa jàpp ni liñ koy tuumal amul. noo amul. amul te foo ko teg fi ko teg dafa bëri. dafa am raison yu bëri yoo xamante ne mën naa ci jàpp mën naa ci basé wu ne amul tey Sonko taxaw na position boo xamante ne tey ñun xaaroon nañ xam a li sax viol lañ ko wax mais ñun xaaroon nañ lu gën a pire lii ci ci ci ci moom. waaw mais ñëwal ci dossier bi rek foo ko teg. waaw fi ma ko teg mooy Sonko tey ak fu mu toll tey ci wàllu politique fu mu toll tey nekk leader boo xamante ne tey sénégalais yëpp par nañ tey pour topp ci ginnaawam tey bu ko état bi waxaale affaire viol te Sonko nekk nit koo xamante ni su jub lañ ko xam ci dëggu lañ ko xam dañ ko jàpp ci parcours am ak ci discours am tey buñ ko jiñee lii ñun dañuy jàpp ne tey lii nii par par loola wala tey kamb la boo xamante ne dëgg sara la boo xamante ne tey autorité bi état bi tey tegoon nañ ko pour Sonko dugg ci xel yenu na yéen nangu na dimension bu Ousmane Sonko toll ñuy wax ni mën na nekk président 2024 muy dem ci ab ay kër yu ñuy def maasee rawatina ay xale yu jigéen yu tuuti ñoo fa nekk. bien sûr sama xel man personnellement sama xel romb na foofu parce que lu tax ma ne na foofu Ousmane Sonko sénégalais la Ousmane Sonko du waliwu du bu zaman du yonenti ay sëriñ ay kilifa diina ñooy dem ñooy ni maasee waxuma laa nag Ousmane Sonko. Ah, ci kër yooyu ça dépend. ça dépend bu fekkee état de santé am da ko permettre mu dem ci kër yooyu ñu maase ko parce que kër yooyu tey man su ma ko bëggoon tey yoon dal sama kaw. kër yooyu tey peut-être am nañ këyit boo xamante ne état moo ko légalisé pour nit ki am jafe-jafe dem fa Ousmane Sonko bu yaakaar ne tey kër googu noonu moo war a santeem wala moo a a fajal li nga xamante ne moom mooy jafe-jafe ci yaramam war na fa dem même bu dul lii même bu lii jàllee sax war na fa mën a demaat te ñuy xamal askan bi ñuy xamal adduna bi tey lay lu lu lu lu loo xamante ne tey duñ ci arrière ñun sénégalais yi ku nekk a ngi wax da ngay dégg lu ne ay waroo cee dem ndax ñoom seen doom yi nekkuñ ci seen doom yi ña ngi war di ñun loolu intéressé wuñu sëriñ yi ñu ngi war a wax waxuñ intéressé wuñu xam nga intéressé wuñu ku ci nekk yaa nga tiim sa këru 40 millions wala ay kilomètres de tiim la ñun dañuy xëy yi naaj bi soo ba ngoon dem suñuy njaboot 2000 francs bu ñu leen jox problème lay doon tey bu ñu gisee koo xamante ne tey taxaw na pour changer système Sénégal bi mu nekk di dund pour taxaw askan bi taxawu sénégalais mu jaroo ko mu bàyyi liggéeyam mu bàyyi askanam bàyyi léppam taxaw dëggal boppam kooku ñun pare nañ pour wàcc ci terrain bi ànd ak moom ba jusqu'au bout parce mu fàtte ne moom 23 juin ñun ñoo wàccoon 23 juin ñun sénégalais ñun ñun ñoo wàccoon Macky Sall jël réew mi parce que réew mi nekkoon ci condition yoo xamante ne arrangé doon ñu arrangé wuñu woon tey foofu lañ tollaat tey dama ne tey foofu la lañ tollaat ñun ba tax ñu wàcceet man wàcce lu ma Sonko wàcce lu ma Macky Sall wàcce lu ma viol wàcce lu ma beneen problème mais dama wàcce pour une justice équitable dama wàcce pour sénégalais bi bi nga xamante ne tey bu sax ginnaar ñu teg ko jox ko pen doomu Macky Sall bu wàccee loi ñu jox ko loolu moo tax ma wàcce dama bëgg. justice équitable. kon da nga jàpp ni réew mi amul justice. non réew mi am na justice mais justice bi leen neex la ñuy dawal. kon kay réew mi amul justice. non dëggal mi la bi leen neex lañ dawal laa la bi leen neex parce que réew mi amul justice mooy réew boo xamante ne amul jàpp amul tëj am na justice leen neex la ñuy ci yoon leen neex la def parce que tey munu maa nangu tey. juge defuñ seen liggéey. munu maa nangu du man dama munu ma nangu man en man sama point de vue man munu ma nangu tey ma Sadio Guinane jàpp ma dormi ci ça c'est anormal loolu. viol viol yow doo ko cautionné. viol amul kenn ku ma koy nangul wala ku ma koy man du ma du ma du ma nanguwuma ko parce que du yoon ci société beneen société bu société Sénégal sax viol nekk ci yoon mais dama xam ne Ousmane Sonko en tant que tel Ousmane Sonko ci wàllu boppam non du nit koo xamante ne genre boobu la. est-ce que du erreur ci Ousmane Sonko mu xamoon que dañ koy comploter ay ati ata ngi nii muy dem ci yenn bërëb yi ba ñu ko ciy tuumaal. waaw non du ma ne erreur parce que su ma waxee dafa mel ni déggoo ma sànq nee naa la carrément Ousmane Sonko bu fekkee ne moom problème bi mu am ba tax mu maase wu mu dagg biir avion dem day dem bu fekkee ne dafa am bu nekk fi boo xamante ni yor na bërëb xamante ni problème bi ko war a faj mu ngi fi dafay toog parce que Ousmane Sonko sàccul ay milliards yi muy jël avion di dem di faj ji Europe de santé am fii la ko état fii la ko moyen may mu jël otoom ànd ak ay garde corps am wala ànd ak ay nitam dem dugg mais preuve am na bu fekkee ñoom dañ ko accusé ne moom moom la nañ def yoon ñun li ñuy bañ mooy tag gasal ko ndëgg sarax comploté ko jàpp ko teg ko ay daan yoo xamante ne comme liñ fi xam nga ku jàpp Khalifa Sall. éliminer ko complètement. mais dama ne ku jàpp Khalifa Sall boo bëggee jàpp Sonko di nga teg ay pexe parce Karim kii def na ay ci politique Sénégal Khalifa Sall ku Karim Wade bëgg a Sonko tey da nga ko tegaloon ndëgg sarax mais nit ñi que Karim Wade doomu président la woon fii ci réew mi te nit ku fexe ba ba ko. boo ande nga jàpp Sonko sénégalais war nga ko wet ñun ñun ñu ngi ñun en tant ñun. bu ñu mooy ñun en ñun en ñun ñun ñu ngi xaar mu def Sonko lu gën a pire ñun lii bettuñu. ñu lan mooy nekk seen taxawaay yéen. bu ñu ko tëjee li nekk suñu taxawaay dèjà lancement bi daw na def nañ appel dèjà am na lu xaj doot jot am na bu ñu ko bëggee jël biir këram par la force am na lu jot xew loolu ce n'est que kenn du ko nangu kenn ñun bëgguñu ñu ñuy def nit ñi di ko nangu duñ ko nangu ñun. Ah, pourtant Sonko loolu la ootee bi mu defee conférence de non loolu la ootee si loolu la ñu koy aussi en tant que jeune en tant que jeunesse en tant que avenir u réew mi ñun li Sonko ootee appel à la résistance boobu ñun dañ ko ci rejoindre. dañ ko ci rejoindre parce que li ko bëgg jëlal dëgg du yoon ñoom xam nañ yoon nañ def yoon fekkee mënuñ def yoon nag attaque ku nekk na xam ne nu golo boole doomam réew mi ñun ñoom ñoo ko bokk suñ bëggee mu tàkk day tàkk buñ bëggee mu jàmm day am jàmm. jërëjëf kontaan nañ. ñu ngi lay ziar. ñu ngi yaa ngi am jàmm. sant borom bu baax a baax. tur bi ak sant bi. man bàcc laa tudd maa ngi sant Mané. yow waa fan nga. man euh, waa Casamance la. ah waa Casamance nga. waaw. yaa ngi suivre dossier Ousmane Sonko. bu baax. alors yow kon mbokk Ousmane Sonko nga. bu baax 100 pour cent. mais doo ko faral ci dossier bi quand même. liñ koy tuuma. du ma ko faral ci lu dul dëgg. mais lii dama ko cay faral parce que du dëgg. foo ko teg. fu ma ko teg. xam nga nit ñi dañoo war a jàngat waxu femme bi ki moom salon beauté dañ ko war a déglu bu baax parce que comment ça se fait jigéen yow ñu viole la nga ne dañ laa viole quatre fois te jour bu Ousmane Sonko war a ñëw pour marcher femme bi nee na jour bu Ousmane Sonko ñëw war a ñëw pour marcher dafa ne euh, aji Sarr Ousmane Sonko dafa war a ñëw pour marcher par la suite Adji Sarr ci diggante boobu moo ngi doon wax téléphone. est-ce que borom salon bi li mu wax dëgg la. man ci moom laa sukkandiku. waaw mais ci ay propos rek ay kàddoom rek. moom moo mën a indi. preuve wax mën na nekk dëgg ka mën na bañ a nekk dëgg. parce que dëgg la. léegi beneen bi Ousmane Sonko est-ce que deful erreur bu mag a mag dimension bi mu toll muy dem ci ay kër yi nga xam ne ay jeunes fii ñoo fa nekk. non du erreur xam nga nit nit dong nga mën a doon. nit nit dong nga mën a doon man mii di wax ak yow. sama gannaaw gi day métti. mais du ngeen benn dafa xam ne dañuy wax ni mën na nekk président en 2024 est-ce que warul woon am beneen taxawaay bay dem ci salon nga xam ni rawatina foofu du salon de massage suite beauté mais sëñ bi dafa feebar. yaa ngi dégg moom bu fekkoon lu bon moo ko tax a jóg du dem bu doon lu bon moo ko tax a jóg du dem est-ce yaa ngi dégg lii ay pexe la comment ça se bi di laaj. Ousmane Sonko kañ lay ñëw yow ku ñu war a violer noo mun a laajee. mais mais mais sëñ bi fekke woo bi muy laaj borom salon bi rek a wax. borom salon bi moo wax ñun ci moom la ñu sukkandiku ci waxam la ñuy sukkandiku. kon li mu wax mën na nekk dëgg ka mën na bañ a nekk dëgg. moo nekk dëgg amul ne moo bañ na nekk dëgg moo nekk dëgg. léegi ndaw si tuumaal Ousmane Sonko ne Ousmane Sonko da koo violer ngeen weddi ko fan ngeen teg loolu yéen it. fu ñu ko teg na ndaw si génn na ndaw génn sa ndaw si xam nga problème fu mu ne xam nga fu mu ne ndaw si ba léegi kenn mënu koo teg bët ndaw si mun a génn mais sagam moom moo dañ koo violé mais moom moo war a taxaw ñi ñi mu wax preuve mu wax lu leer. yóbbu na dossier bi yoon ba def plainte am kay. yóbbu na dossier bi yoon xanaa yow man ak yow bu ñu amee problème nga yóbbu dossier bi yoon xanaa man ak yow dinañ gisee di dem yoon nag. Ah, mais day xaar ñu convoqué leen. ah, ah yow ana bi yow sa jëm bopp ana xam nga li am solo mooy justice bi la ñu war a bàyyi ñu def seen liggéey. xam ñun man xamal la laay wax rek xamal lu may wax fii amul justice. Sénégal amul justice. ah bon amul. lu tax fii xam nga ban justice moo fi ne. justice nguur a fi ne defal ma lii par la force nga def ko kese man tey jii su ma defee fukki dërëm sax su ma ko sàccee te soo moytu ma defee ci kaso bi. kon da nga jàpp ni ci dossier bi dañuy tëj Ousmane Sonko. dañ ko ndax dañ ko nar a tëj. ñoom comme justice amu fi da nga jàpp que ni dañ ko war a tëj. dañ koo bëgg a tëj éliminer ko ci ak côté bu ne ci côté bu ne mais bu soobee suñu borom ñun. duñ ko seetaan. du ngeen ko seetaan. non duñ ko seetaan. lan ngeen di def. lu ñu xanaa xanaa sëriñ wax sëriñ yi wax mais lu ñum mën ah pour soutenir ko dañ koy def ñun lu ñu mën pour soutenir ko dañ koy def. xanaa du ngeen taal dëkk non non taal dëkk bi buñ ko taalee ñoo ko moom ñax dëkk bi buñ ko taalee ñun ñoo ko moom ñàkk mais xoolal dinañu bañ ba fu bañ yam ndax Macky Sall bañ koy ba eh, Ablaye Wade di ko noot. ñun ñoo taxoon bañal ko. ñun ñoo taxoon ci ci foofu est-ce que tey du njuumte ngeen votel Macky Sall en 2012. Euh, gis nga 2012 ak sama bakkanu doom man maa toog ne Macky Sall gis nga mandaa deuxième mandat bi dinañ ko souffrir bu baax a baax te li ma wax te ni ma ko xalaatee moo ñëw. est-ce que yéen leen ci part de responsabilité. bu baax mais daf ñu nax nag. ci naka. non Macky Sall daf ñu nax. Macky Sall lu mu ñu wax ak visage bu mu waneel benn bokk ci jëmmam barki yàlla benn bokku sa jëmmam xoolal ñëpp law euh, jour 31 décembre toog na ci télé nee ne sénégalais dañ koo bëgg non nax na boppam yow Macky Sall nax nga sa bopp billaahi nax nga sa bopp kenn bëggu la pourtant am na ñaari mandat de ban ñaar falu nañu voté laat waaw lépp ci njumte su njumte sénégalais mais bu dem bu doonoon tey tey tey tey billaahi wallaahi wa taalaa kenn du ko kenn du ko voté. bëgg na aussi ñetti ma ñetteelu mandat. xanaa loolu mooy dañ koy jox suñu bakkan am sama gars fii lañ toog mën a leen troisième mandat Macky Sall na kenn ku nekk dem jënd sa bàmmeel gas toog xaar foofu sa dee ndax fa fa ngay dee sagam yow sa deuxième mandat ñu ngi ñu ñoo ngi sukuraat gis nañ gis nañ Afrique réew yu bëree bëri président yi woon droit ñetteelu mandat mais am nañ ko lu mel ne Alpha Condé ak Alpha euh, euh, d'Ivoire. ooy li ci tànk du ci loxo li ci loxo du ci bopp yaa ngi gis nga ñooñu foofu foofu la fii senegal la fii senegal la. gars nañ fii Sénégal du mës a tàkk parce que kilifa yi fi tëdd la. kilifa yaan. du mës a tàkk parce que kilifa diine yi maa jox la benn misaal bis bu yàlla di ñu mbugal du xool kilifa yi. kon bis bu réew di tàkk du ñu xool kilifa yi ndax yow su ma fekkoon nga taxaw ma mbéj la ah nga baal ma de sa waajur taxaw est-ce que di nga xool ci lool da nga may songu dóor ma ba may bëgg a kon ñun du ñu xool ci lool de ñun xamal la ñu xool suñu avenir suñu avenir doom. waaw yéen aal bi ngeen àndal nii yëpp ci Ousmane Sonko xanaa Ousmane Sonko daa am lu mu leen defal. dara Ousmane Sonko mayuñu fukk man Ousmane Sonko. billahi wallahi watallaahi musuma kaa gis xam nga kañ laa koy soog a gis sama dem bii bii laay soog a gis Ousmane Sonko est dégg mais musuma kaa jis musuma may fukki dërëm musuma may dërëm Ousmane Sonko man bokkoon naa ci ñi ko contre ci ko ñëkk a ñi ko ñëkk a man ci laa bokkoon mais ba ma demee ba ci biir ba gis système Macky Sall dara baaxu ci système Macky Sall dara baaxu ci fii ñaata jeunesse ñoo toog di liggéeyuñu. gouvernement bu ah di chaque jour nga dégg ay milliards chaque jour nga dégg ay milliards mais Macky Sall lan la. Macky Sall lan la moog ñi ko àndal mais dinaa la wax benn affaire yéen yéen mi yéen mii di homme de homme tenue homme de tenue yi dama am respect bu mag ci yéen ndax euh, ñun ak yéen ñëpp benn lañu mais dama bëgg ngeen ngeen jël seen responsabilité muy ci gendarmerie muy ci police muy ci militaire yi il faut ngeen xalaat ni yéen ci population bi ngeen bokk ñun ñoo leen fi teg pour ngeen aar ñu kon donc bu leen nangu. Macky Sall di leen jaxase ak ñun parce que dañuy indi benn haine suñu diggante ak yéen dafa am haine bu ñu indi suñu diggante ak yéen bu leen ko nangu militaires yi jóg leen ngeen jël seen responsabilité comme que yéen yéen yéen a war a jóg di yore war a yore nguur. waaw ah, mais bu ngeen bëggee taal dëkk bi aussi gars yi duñ leen ci bay de. ban nguur lañ ban dëkk bi lañ taal. gis nañ barki xale yi doon def loolu dafa garaaw. déet Eh, policiers yi ñoo ko njëkk. policiers yi ñoo ko njëkk. policiers ñoo ko njëkk parce que doo man xanaa nag boo ma fekkee fii ma taxaw nga bugg maa neewal doole ma riposte damay riposte ñoom ñoo bu ñu taxawoon fu ñu taxaw ñi ñu taxaw fu ñu taxaw problème du am xam nga lii yëpp lan la en er lañu bugg a indi diggante police ak euh, euh, population bi te population bi bu ñu jogee amul kenn ku leen mën a téye gis nga bindoona lu ñu def waa bindoona gis nga lu ñu def à la fin gendarme bi ñu leen tee ba armée bi la ñu woo kon donc Macky Sall bum ñu taalal bum ñu taalal suñu réew ndax guerre bu passé rek ci Casamance doy na sëkk dafa doy sëkk barke bum ñu taalal suñu réew bu fekkente moom dafa am li ne ci gannaawam wala ñi ne ci gannaawam man yéen ma laaj leen benn affaire yéen waa nguur gi yéen ñëpp laay wax muy Macky Sall ba ministre bi mu munta doon xanaa dafa am ku leen dig ni yéen doo leen dee bu fekkee dañ leen dig ni ko yéen doo leen dee da ngeen di nax seen bopp kenn ku nekk bis dina ñëw da ngay dee Macky Sall yow munoo garanti sa bopp tey ngay dee wala suba ngay dee ak say ministre ak ku même bu doon sa ab jinne moo taxaw garanti la sa dund da lay nax jinne boobu sax day dee bu dee da nga dem fenn ñu ne la yow doo dee da ngay nax sa bopp te bis boo deewee ay nit lay gunge ay taaliba lay gunge ay sëriñ ñoo lay gunge dem suuli la ñoo lay jàngal alxuraan mais Macky Sall yow xanaa yow yow fat ah gis nga man man man man man personnel du ma dellu gannaaw ci mbirum Sonko du ma man bu yaboo sax xoolal ma dee du ma taal dëkk bi de mais comme waa Y'en a lu ñu waxoon démb dañ ne sëriñ yi nañ jóg wax te dëgg la sëriñ da ngeen war a jóg wax sëriñ am ngeen si part de responsabilité bu mag yéen a ngi noppi dëkk baa ngi tàq war ngeen wax yéen ñëpp war ngeen mën a jóg. wax ak Macky Sall bu dul loolu dëkk bi bu tàkkee doo mun a tey taalibe yi doo mën a téye ni ñi sëriñ yi jóg leen ngeen wax te waay Y'en a marre wax nañu nag ñëpp wax nañu ñi ne Macky Sall bu dellul ci gannaaw ñun duñu dellu gannaaw te ñun duñu mus a dellu gannaaw ñun duñu dellu ganaaw de barki rasulaay duñu dellu gannaaw duñu dellu gannaaw Sonko xanaa ñu may ko. wala la ziar. yaa ngi am jàmm. maa ngi am jàmm bu baax a baax. tur bi ak sant bi. Rane Cissé. ban dëkk nga jóge ci senegal Saalum. fan ci Saalum. Hmm, ginnaaw Passy. région de Fatick. département Foundiougne arrondissement Toubacouta commune Saalum Ndiané village Ndiaye Ndiaye Sanc. kon yow mbokk Macky Sall nga. waaw laa parce que ñoo bokk réew mi parce que Sénégal moom defe naa ñu ñëpp benn lañu yaa ngi suivre euh, dossier Ousmane Sonko. alors dégg nga ni dañ koy tuumaal ni dafa viole xale bu jigéen lan nga ñu ci mën a wax. waaw maa ngi koy dégg. lan nga mën a wax ci loolu. noo loolu gëmuma ko parce que xam naa ne loolu stratégie. da ngaa fekkee bi muy am. noo fekkee wu ma ko. léegi foo teg ni gëmuloo ko. foo teg ni gëmuma ko parce que nit ñu ko xam lu ne ñoo ko seedeel parce que dégg nañu ndaw si tax man sax man dama am question bi may laaj sénégalais yi. mooy ban. mooy ndax si kanam amul ay mbokk. nga laaj parce que li tax ma laaj ko mooy parce que mbir mi ba mu xewee ba léegi mun na moom dañ koo viole moom am na ay mbokk am na papa am na yaay am na mag am na rakk am na nijaay léegi lan moo tax ñooñu joguñu ñëw défendre seen doom ne ñun kat si ñu doom dañ koo tooñ. Ah, ñu ngi koy défendre parce que porté nañ plainte Ousmane Sonko. kan moo porté plainte Ousmane Sonko. porté nañ en daal plainte bi moom dem na brigade de kan moo ko def. te waa brigade de recherche convoqué nañ Ousmane Sonko. léegi kan moo kan moo bind laa la laaj. man xaw ma. waaw xam nga yow li. xam naa ni daal porté nañ plainte Ousmane Sonko. mais xam nga ne porté mais xam nga ne ku ñuy wax aj Sarr moo ko porté plainte. parce que moom la mbir mi daal. moom la mbir mi daal. léegi ana ay mbokkam loolu moo tax. jarul laaj xam nga li mbir mi li ci am solo mooy ka wax ni Ousmane Sonko da koo def. porté na plainte. yow leer na la moo ko def. déet man waxuma ni moo ko def de dama ne. kay wax ni Ousmane Sonko moo ko def ndaw sa Adji Sarr moo porté plainte Ousmane Sonko. waaw moo tax moo porté plainte euh, Sonko. li ñuy wax affaire bi affaire civile la. loolu la wax. lu ci yoonu état. état bi. danga jàpp ni état bi daf ci daf ci dugal loxoom. waaw parce que fii gis nga ay nit nit yoo xamante ni dañ leen di viole wala pas violer ñu tooñ leen yoonu état lay toog seetaan ñoom ñaar ñi dem si si si si régler seen problème léegi nan la ci état bi dugalee loxoom. nan la si état yow yow yow est ce que yow ndaw si gis nga ko bañ bañ na moo porte plainte ba léegi yow gis nga ko. gis ko jublu ci lan. gis ko comme tey li nga déggee Ousmane ko wax tamit war nañ mun a déglu ndaw si wax. ndaw si bu ko neexee bañ a wax. moom li mu war a def def na ko xaw ndax dañ koo def wala defuñu ko waaye daal porté na plent brigade de recherche. maanaam lii lépp sëriñ bi lii lépp li xew lépp. état moo nekk si ginnaaw pour liquider benn adversaire politique parce que sénégalais yëpp gis nañ ko tey ni mu def Karim Wade daf ko Khalifa Sall loola loola bu ko def Ousmane Sonko parce que xam na ne kii mooy adversaire am potentiel adversaire bu mat adversaire la am muy Ousmane Sonko parce que nag ñun duñu ay dof te ñun ci réew mii la ñu dëkk duñ ay Guinée duñu ay Malien fi lañ juddoo yaroo fi suñu maam fi lañ juddoo yaroo fi demuñ fenn nag ba ñu juddoo ba léegi am na 30 ans yu teg mosuñu génn Sénégal te ñu ngi am ay xel di liggéey jaamu yàlla takk suñuy soxna yor suñuy kër kon xam am nañu xel kon tey maanaam tey nit lépp loo bëgg a def sax mun nañu ko xam lii lépp maanaam liquider benn adversaire politique la te yow moom de décembre wax na ko nee na journaliste bi laaj na ko mu ne ko am na ñoo xamante nii soo jàppee réew mi tàkk léegi tey. am na soo leen jàppee réew bi tàkk naa kon opposition bi moom bokku ci léegi kon moom ay partisans am rek la am ñoo xam soo leen jàppee réew mi tàkk te ñooñu alalu mbooloo lañ leen di tumaal kii tumaal luñ ko ne dafa jël alalu jàmbur moom benn nit la joteewal kon lan moo tax léegi ñu protéger ñee jàpp ñee. liquider adversaire politique xanaa réew mi du réewum droit wala réewum justice. non dañu koy wax mais justice yow yow mii di ma laaj nii sax yow. déet man xaw ma de. yow xam nga. yaa déet ma lay wax dafoo jina jàpp la même yow mi tey soo amoon ak ku nekk si problème yow moo leen nañ dem sis sis yow wóoloo sis sis yow. man saa su ma fekkee tribunal fu justice atte yoon. waaw loolu dëgg la tey nit foo dem mënuñoo wax ne ñëpp ñu bon lañu sis sis bii nii ngay gis nii wallaahi am na ñoo xamante ne nii ñoom dañuy def seen aqulay temps la li ñuy def xooluñ si Macky xooluñ ci Ousmane Sonko xooluñ ci man xooluñ ma ci yàlla seen borom kese la ñuy jiital seen kanam li ñuy def mais nag am na ñoo xamante ne nii dañuy def pour lu neex benn nit même ba ci tey man commerçant la tey am na commerçant yoo xamante ne nii li ñuy def seetuñ ci yàlla dañuy def rek pour am mais am na ñoo xamante ni tey li ñuy def yàlla suñ borom kese lañ ciy xool loolu foo dem am na fa mais comme dossier Ousmane Sonko bi Sénégal yëpp xam nañ ne politique rax na ci. man waxuma ne moo daf waxuma ne daf mais man gëwuma ne moo daf gëwuma ko mais politique rax na. Euh, kon suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateurs yu TMS TV gis ngeen euh, dugg nañ ci dëkk bi wàcc nañ ci dëkk bi fu dugg ci ruq-ruqaan yi waxtaan ak askan bi ci dossier Ousmane Sonko mi ñuy tuumaal viol te nga xam ni soxna Adji Sarr moo ko koy tuumaal laaj nañ askan bi lan moo ci seen xalaat ku nekk joxe nga ci sa xalaat. TMS TV nag nii la koy defee saa su ne bu événement amee am mbégte am kontante TMS TV ku ko xam-xam ni mooy télé bi feeñal lépp lu nëbbu ñuy profité ci occasion bi di ziaraat Thierno Moule Sow di la xalif général des jinne di la maréchal di la roi médecine traditionnelle internationale ak famem am nañ mbégte doon leen indil waxtaan bu am solo jëm ci dossier Ousmane Sonko ak Soxna Adji Sarr li leen jox di daje ci yeneen i ay waxtaan jërë